به كل عرمسي يلومونني فازددت شوقا ومغرما لجنب الهمام الأرياحي المقدس ذهبت لعمر الله بكل مذهب لدرك رسول الله غير مؤيس له عين آلاف من الحجب شاهدا تحير في خاطر المتحسس والعين عين الهاء والهاء عينه له الكعبة العليا له بيت مقدس له طيبة الطيبة ودار مقامة <clears throat> له الخلد والفردوس خير معرس ودار سلام بعد عدن وأزلفت وتلمس مداحا له كل ملمس ومأوى ومأوى وجنات النعيم تزينت لخادمه تزهو على كل ملبس ولم يبغ <clears throat> غير المصطفى وحبيبه ولم يرد بالفردوس دون تقدس له مني اليومان يوم بقيته ويوم أوافي فيه غير مكردس <clears throat> وحل سواد القلب يا أحمد لا أنا بباغ سواه لا ولا متجسس له اليوم مني مسلم الأمس قبله كذاك الغد الآتي لحبي وملمسي تترست بالبدر المنير فإنه سناني وصمصامي بليل العرندس بليل العرندس أفوض أمري للإله مؤسسا شؤوني بخير الخلق خير مؤسسي فلا تشمتن بي كل قتل ولا أرى تقلب جبار ولا متحسس لترحم غريبا عينه ولسانه وأزواقه يا خير غوث ومنفس رجوت لأني لائذ بجنابه وخفت لأعمالي أمولاي قدسي إني مقدام على كل تهنوان عن الطاعات أفقر مفلس وليس سوى أني اضطررت بفضله معدا لهذا فاجبر الكسر واعكس ولا تجزني يا رب البرية صليا ولا تخزني يا رب فعلي سيئا ولا حسنا بل بالجمال المقدس فيا الله يا رب البرية صليا على سيد الأكوان وارحم تنفس محمد الفاتح المتحقق العلي لما أغلقته متلمس وهو خاتم رسلا أتوا سبقوا له وناصر ذاك الحق بالحق مقبسي وهادي إلى خير الصراط صراطك الجليل المستقيم النهج غير مدلس مع الآل حق القدر قدر نبينا ومقداره العالي العظيم التأسس يا أم دنا جبلو جناب الهاشمي والي هاشمي كي ينتبه كي كجوك هاشمي المقدسي بوبو جناب بيغا قمنا بوين سل الله بوين لاب الله لابل نن نيچه جناب بيب يزبانكم رجس آل البيت ويطهركم تطهيرا lan mooy jublu janaabal haashimi salaami ya ummu salaami janaabal haashimi yil muqaddasi sama nuyo mu ngi jëm ci wàllak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay ku jóge ko nga xam ne wàllam lépp sell nuyoo boo xam ne nag yusri dana xeeb kulla miskin bépp gëttëg misk wa narjis yi ak gëttëg maa ngi nuyu wàllu yonente bi sala alai sallam waaye mooy maa ngi nuyu yonente tax <coughs> te bu rek dal ci maa ngi nuyu yonente pour sellal maqaama bi pour wane ne maqaama bu goo xam ne sell na sell goo xam ne doo jug rek tàbbi ci moom rek waaye waxul ne maa ngi yuyu yonente bi mubacharatan <coughs> ngir wane ne nuyu naa lépp tim lu aju ci rek nuyuwaale naa ko ndax nuy ngir mbëggeel gi ma ko bëgg mbëggeel gee waral nuyoo gi moo tax nuyo bi mbëggeel gi laafaale na lépp lu jox ci moom sallallahu wa sallam araani gis na ma maanaam maa ngi gis sama bopp ne xat atlaqtu boyal naa tarfi sama bët zaahawan di aji bëgg ku bëgg di xool ci wàlli ku bëgg fa sumtu ma séentu sentu ɗo fesumtu mattoggo bima taaya ci loo xam ne dana lottu loo dana lottu bi ci moom kullu irmisi bépp gëlëm gu mag maanaam lépp lu ku dëgër fekk waxut gëlëm na irmis mel ci biir gëlëm gor yalla gudagere nonu ci bir gorñi bayne ma toggo coonob yoon wi loo xam ne ñooñu ñépp lottu nañ ci xenu ko yelu muune ni dañ may yadd <coughs> fës dëttu tama dooleeku chawqan ci cofeel ci nammeel wa maxraman ak mbëggeel mbëggeel shawq waxoon nañ ko mbëggeel guy waral nameel maxaram nag mbëggeel gu topp boromam comme kuy fayeeku bor te éramut ki ku ameel bor te soxla xaalisam bi ni muy def ci moom li jën bil humaami ci wàlli yenent bi salaay sallam sang bi nga xam ne al aryax yi aji tedd almuqaddasi ki yàlla laabal ci mboole mi wàññeeku zahabtu bàyyi dem naa kulla mazhabin bépp yoon wu ne laa jaar jaar waay bu nekk laa jaar la amrullahi maa ngi gëñ ci yàlla xam na liy gëñ waaye léeg-léeg ci waxam ci yonent bi fa ciy gëñ jamiu garaami wal kitaabi wa xaaliqi li ahmada nuuri lxaqi sirri lxaqaaiqi sama mbooleem mbëggeel bàyyi na maa ngi gëñ maa ngi gën ci téere bi yàlla bi maa ngi gën ci yàlla mi ma bind ne sama mbëggeel yëpp yonent bee moom wa salaam koo xam ne mbëggeelam yëpp yonent bee ko moom yoonam yëpp tim wi àggale ci yonent boobu la yi àggale ci yonent yëpp bàyyi ne jaar naa ci li darke rasulillahi ngir jot yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi xayra mu duuma kuñ naaguloo dark bobu dur kuy rawante nit ba jot ko ngir fekk ci ko fekk ci bi mun naa am ndax yonent bi moo al mar'u ma aman ahab kuy julli ni yonent bi don julle ngir bëgg yonent bi di hor ni yonent don xooree ngir bëgg yonent sallallahu alayhi wasallam di aj ni yonent don ajee ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di joxe asaka bu la waree ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi di dundale léeg-léeg ba doo am dara ngir roy bi sallallahu alayhi di baax ci jaam yàlla yi ngir yonent bi sallallahu alayhi ko kay jaar na jaaruwaay yépp mu ngir ngir xàgg ngir nekk fa yonent bi ne Seydina Ali gannaaw yonent bi dafa sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee xalifa dafa am ko fekk mu ngi toog ci basang yi nooyu dara lekk yi wañ su lool am ne ko ah kii ne ko li ngay def mu ne dama ragal ne bu ma deful ni yonent bi doon def duma dem fi mu jëm kon dark boobu mooy dem fi mu jëm dark boobu mooy nga jàpp ci yoon wi te bàyyi ku nga xam xam aynu juróom-ñaar fukk rek la loolu lay wax juróom-ñaar fukki junney xijaab yo xamne da fay tektele shahidan muy aji tektele tektele lan tektele magayam tektele kaweyam tektele sorry maqamamu tahayyara gëlëm na fi ci mom khatirul mutahassisi khatiri ki nga xamne ni da fay dajtu di jema gëstu xabar wal aynu waaye moom moom nga xam ne am na aynu alaafi min al xujbi moom ci boppam mooy aynu mooy aynu zaati fii mu ne aynul haa'i waaye xam nga ne xaaga xaa'i huwiyatul ga ca allahu mu ngi lay junjaat zaatu wal haa wa aynuhu haa googu aynuhu kii jëmmam lahu ñeyal na ko al kaabatu kaaba al aliya bay aji kawe lahu baytu maqdisi ba tey moo moom kaaba gi moom moom baytul maqdis lahu taybatu tiba moom moom tayba kay madina munawara bokk na ci turam yi tayba طيبة بيجنا سل ودار مقامة خمنا كرك سخواي خمنا الجنة له الخلد جنة الخلد والفردوس الجنة فردوس خير معرسي جنشي yeesalu waay bu ñuy noppaloo xam nga aji tukki ci arab yi dañoo am lu ñuy wax taaris ak inaaxa inaaxa mooy wàccak aji tukki ji bëccëg di noppalu taaris mooy wàccak aji tukki ji guddi di noppalu foofa kay kuy noppalu dëgg dëgg noppalu waaye baa nga door a ñëw nit mënta noppalu te àggagut àjjana wa daaru salaamin ba tey baada adnin jannata adn li wa uzlifat ñu jegeleef ko wa telmasu yii yëpp nga xam ne ay teraanga la teraanga yii yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ndax lim indi moo ci àggale topuko ko moo ci àggale nee kullukum yadkhulul jannata illa man aba ñeen ñeppay dem aljana lu may ku bañ ñi kui ko ku bañ moy kan kuy bañ aljana man ata mu man ataani dakhal jannata wa man asani, faqat aba kuma top topp aljana kuma moy nak moy ya bañ rek bayna teranga yoy yeb nak dafa melni teranga yi da fay ut ki tag yonent وتلمسوا مداحا له كل ما المسي هود ديكو ومأوى وجنات النعيم تزينت جنة المأوى جنة النعيم يب نيجي باري di pareel liggéeykat yonentu li xaadimi yi yii yëpp ñu ngi pare di taaral seen bopp fekk taggkat yonentu la ñuy xaar fekk it liggéeykat yonentu bi sallallahu alayhi moom la ñuy xaar tezhu dana puukare ala kulli malbasin ci béppu mbalaan barab yooyu nga xam ne mu ngi rafetlu lu muy rafetloo mu ngi rafetloo ay malabis yoo xam ne tazhu ala kulli malbasin di taarlu mel ni seet buy xaar seetam walam yabgi غير almustafa wa ولم walam yarda دون تقدسه loolu daf koy delluwaat ci boppam ndax moom xaadim bi nga xam ne mooy liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajjana yeeg xeeti ajjana yim tudd yëpp mu ne yëpp a ngi taarlu di ko xaar ndax ne ko yow yaay taggkat yonent bi sallallahu alayhi wa bunt yëpp a ngi koy éviter pour mu dem ci ñoom waaye walam yabri moom xayral Mustafa wa habibi sàkkuut ku dul yonent bi sàkkuut ku may soppe bi yonent bi ki yàlla tabaraka wa taala walam yarda gërëmut bil firdawsi lum kawe-kawe ci biir àjjana yi bàyyi ne xaadim Mustafa bi nga xam ne mawan jannaati naimi firdaws xuldu da nga daaru muqaamati yépp ñi ngi koy pareel moom gërëmut sax dem firdaws te defut selleexut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sell ak gim am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sellee péeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo moo gën a foor ci moom moo gën a foor ci moom at jànna boo xam ne loolu bokku ci moo tax waxoon na ne walaw lal tisaasu fil jinaani bi nuurihi lama xanna naxwal xuldi kulla mubassari bay neewoon na bu taxutoo nag ne ajjan ña ngi fay bànneexoo leeri yonent bi te mooy nekk ak bàyyi ne kon képp ku am bëti xol kuy gis ku xam dara doo bëgg sa aljana maanaam moomu moom la waxaat fii ne walam yarda bil firdawsi duuna taqaddusi ndax moom am na basira te ne ñi am basira ñëpp nag bu taxut ak nekk ak yonent tubi ci biir aljanna ak leer ak yonent ci biir aljanna ñoom sax gërëmuñu aljanna lahu ñeyal na ko min nii tukkee fi man yowmaani ñaari bés yow mun baqiituhu des naa ko bési àddina wa yow ak bés boo xam ne waa fii dana ma dikk fii ci moom xayru mu karde si duumu kuñ tënk ñaari bés la am ak moom bési àddina ak bési àlaaxira te xam na ne bés boobu koo xam ne ajjana yaa ngi pare dina la taarlul xam nga ne bés boobu bokkoo ci ñi nga xam ne dañuy gis dañuy gis nax naxi bés ba waaye nëttaxi bés ba lañuy gis waxalla sawaad al qalbi mu wàcc ci xol bi léppam ahmada ahmed laa ana déet man bi baaxin may sàkku si waaxu ku dul moom wala mu tajassi ma koy rëju sàkkuwum ma ko ku dul moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu feeñ nëbbatuwuma it di ko lahul yawmu min nii مثل ما الأمس قبله كذاك الغد الآتي لحبي وملمسي لم هم تمن تي موي لم همون ديمبو لم همون ديمبو حياتي لخير الخلق من زحزح الغينا ومزق أهل البطي الزخرف مينا لولا وهون سما دندو يب yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko moom moo moom suma lépp moo moomoon loolu démb moo ko moom it tey moo ko moom tim ëllëg gi nara ñëw si suma lépp daal sama soppe bi lay neyal mu yonent bi alayhi wa ngir mbëggeel gi ma am ci moom ak càkkutéef gi nga xam ne moom laa am ci moom te tarastu fegona hero tërs mooy mi jën yooyu nga xam ne ñi xeex ñi amee def seen diggante ki ñuy xeex ak bil bedril muniri ci weer bu leer wi fa innahu naka moom yonentu sallallahu alayhi wa sallama sinaani mooy sama guntu xeej samsaami mooy sama jaase buy dagg bi laylil arandesi ci guddi gu lëndëm guddi gu lëndëm lëndëm sama niituwaay ci guddi googu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xam ne mooy badrul munir fawidu dana may joyal amri mbir sama ilallahi lil ilahi ñeel borom ki yàlla mu assisan may aji laytaayal fondement shuuni sama mbir bi xayril xalqi ci gën ci mindeeb xayra mu assasi gën luñ fondement man sama mbir yépp yontu sallallahu alayhi wa sallam laa وثقت برب جاد لي باللطائف وبالمصطفى المختار عين المعارف شؤوني رفعت الكل لله سيدي واصلة المحمود باب اللطائف الله يفضل هذا جويلنا يا الله السمنبر سما بير يبنك مانكو فوند ما يونت يا محمد صلى الله عليه وسلم دا يالا كين مانتا جون غير ما نيم لوماي top li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé fala tushmitan yalla bul ndokkuloo bi ñeal ma kul qitlin bepp non wala ara te yalla buma gis taqalluba jabbaarin soppeku aji mbëru ci bir sufi, wala mutahassisi du tiagen kuy rëju di jéem a gëstu xabaari nit ñi ngir lor nga yërëm xiiban aji tumuranke maqaamaam bi maqaam bu tumuranke la maqaamaay gor dëgg dëgg dëgg la la nga waa joxoon atamanna ala zamani muxaalan tara muqlataaya talaata xurin tumuranke gee tax koo xam ne dafa tumuranke ci jëmmam wa lisaanuhu dafa tumuranke ci làmmiñam wa azwaaquhu dafa tumuranke ci ay xam-xamam yoo xam ne ay zawqiyaat la tumuranke fooraay bala يا خير غوث يو جنتي أجي قتلي ومنفسي أك أجي دمبلي رجوت يا كارنا لأني لا إذن نيغرنا كمان لا إذن أجي ويرو لا بجنابه تيوالم وخون يزيد الأماني مذ ببابه رعود عدو إذ أراه حسيرا وليخشين روح وليخشين يوح لداك من السماء نباحا لمغلول الكلاب ضريرا من ماجي في دفن ياكار دما دما ياكار دما هم ياكار موين من تي يونت صلى الله عليه وسلم لا ويرو waye nak yaakar bubu bolewuma kok bolewuma kok xolum pexem yalla moo tax waxiftu maa ngi ragalit lu tax li amaali ngir samay jëf xam naa ne jëf lu màgg màgg màgg ku la gën a xam yàlla moo gën a xeeb jëfam ci kanam yàlla ndax xam na ne jëfam lu màgg màgg xëy xàggut ci yi yàlla moo tax ñun yàlla tabaraka wa taala di xeeb seeni jëf bàyyi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon baaxalu yàlla lu muy baalu yàlla xam nañ ne yonent bi amut bàkkaar bu muy baalu yàlla ndax yàlla baal na ko ci na teleeg am bàkkaar yaghfira laka llaahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'axxara ku ñu wax loolu ba pare ngay baalu yàlla bàyyi na li muy baalu yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam gim xam yàlla géndeeku bu mu génn rek dana xam yàlla xam gu gën a màgg loolu mu gis ne ni mu doon màggale yàlla kon boroon na koo màggalee nu gën a ëpp loolu bàyyi bi wax ne man yaakaar naa lu tax ma yaakaar mooy yonentu tube tax ma yaakaar waaye nag ragal naa lu tax ma ragal mooy samay jëf daal dama gis ne méngoowut ak màggaay yàlla amawlaaya yow borom sama xaddisi yàlla nga sellal boo ma sellalee mooy nga sellal nga samay jëf boo sellalee samay jëf dana méngoog yow wa inniya miqdaamun ala kulli mujtahad xam nga loolu utee لم وخون دم وصان إلهي نفسي الدار لا أرى أميل إلى ما ليس في الشرع جائزا من ما ngi dem ci lépp luñ teylu rek luñ neexlu waaye nit mën naa dem ci luñ neexlu fekk dafa dagan loolu lay wax wa waanin aji tayalla ani taaati walis topp yi afxara muflisi mooy ki gën a ñàkk ci koo xam ne dafa fëggule loolu la melalee bopp loolu yëpp seedu ma gaye yallah tabaraka wa taala tila jambi di def tadaul di def tadaul di def inkisar di def inkisar ba dootul gis moom jëfam bu yàggee nag fi mi li fi muy àgg mooy ne moom dootul gis ne moom jëf na ndax tuutiwaayam ak tuutiwaayi jëfam boobaa li muy yaakaar rek mooy ma gaye yàlla tabaraka wa taala moo tax wala wala sesiwa an nii tëratu bi fadlihi kon daal dara new fi lu may ne man dama loru jëm ci ci ngëneelam rek ngëneel yàlla rek laa yaakaar ku wax ne zahabtu la amrullahi la amrullahi fi kulli mazhabi jaar naa ci yoon wu nekk pour agg fii nag mu ne la man daal ànd ak yooyu yëpp jaar naa yoon yi def na lii def naa li def naa julli naa or na aso naa asaka aj naa néegam yàlla bi maa ngi taqoo alquran maa ngi dundale maa ngi baax ci jaam yi maa ngi moytu lu bon di bëgg lu baax di yokk lu baax waxtu nekk waaye ànd ak loolu yëpp gënal yàlla rek laa yaakaar loolu la waxoon bi sawmi wa xajji lam asiq fal wasaiqu bi fadli karimin yow ma tublal xaqaiqu yaakaaruma suma xoor yaakaaruma sama xaj li ma yaakaar daal mooy ngëneel yàlla bokkut ak yaakaaruma suma xoor moo tax xooruma déedéet waxul loolu de yaakaaruma suma xoor yaakaaruma suma xaj ma suma julli waye and ak loolu usalli tisalan damay julli ngir top ndigal yalla azkurullaha taliyan jang alquran di tuddu yalla di jang alquran ta xamna ne ma zamma shay'un in tabassara zaiqu xam naa ne leneen lu may yàlla nekku fa bu fekke ne aji mos ji xamna xamna dara wala mos na ba tàqamtiku parce que li ngay mos bo tàqamtikuwul man nga ñaka xam lim saf deug deug ku xamne ku dem ba àgg ci xam ne lu dul yàlla nekk fa weesu nga xam ne lu dul ngëneel yàlla amut bu boobaa nag ngëneel yàlla rek ngay ngay gis ndax sa jëf yi pour ñu nangu ko ngëneel yàlla moo koy sóob mu door koo nangu moo tax yonent bi sallallahu wax ne kenn du dugg àjjana ci jëfam maanaam jëfam bu yàlla ngëneel yàlla nekkul rek ndax yàlla wax ne wajadu ma amilu xaadira dañ fekk liñ jëf ci kanam yàlla mu teew jëf jooju bu àndut ak ngeneel yàlla doo ko fekk mu teew ndax duñ ko nangu buñ ko nanguwul rek du teew moo tax ma loru jëm ci ngëneelam mu addan di luñ kuñ xadu li ngir lii gattañ lu nga xam mu ngi koy tuddu ak top li bakkan bi bëgg lolu yalla ko def fëj buri yalla nga jang el kesra damu damu bi wa kisi yalla nga Safane, mbir mi wàññeeku yi nek ay mat ولا تجزني يا ربي فعلي سيئا ولا حسنا من دال من فيك هما انت يو اغوما فمي وخينا من لا ديفال لو باخ لو هيو خمنا ني گنگا باخ تيم دي فيك انت من سماي نياوتيف كون نك لا تجزني يا ربي فعلي سيئا بما فاي سما يو نياو يي نده يو نياو لو رافت لاي خار تي بما فاي سما يو رافت يي صاح نده من رافتوما بما لا ديف لو رافت سي يو دي لا بك wala tujzini ya rabbi fi aliya sayyi'an wala xasana kon daal bu ma fay lu ñaaw bu ma fay sax lu rafet bël bil jamaalil muqaddasi ci sa taar bi nga xam ne mooy naan jaam bi nangul naa la rek jamaalil muqaddas boobu kooku daal moo gën a màgg samay jëf bu ñaawee rawatina bu rafetee xees na ko kon nag man li gën a màgg rek laa bëgg mooy sa jëmm ji bëgg boo ma fayee sama jëf ku ñaaw lu ñaaw lay am boo fayee suma yu rafet yi suma yu rafet yi sama taar bi la la la dëppoog li dëppoog sa taar bi man loolu laa bëgg ay allahu ya rabbal bariyati salliyan yow borom bi yow ki nga xam ne yaay boromi mbindeef yi salliyan yàlla na nga julli ala sayyidil akwaani ci nga xam ne mooy sangi mbindeef yi nekk gi war xam yàlla na nga yëram tenafus yi sama nokki muhammadu am nga am na nokki yoo xam ne li waral nokki bi moom lañ war a yëram léeg-léeg fay xenu xenu boo xam ne nokki bi pour oyafal xenu wi la war xam tenafus yi kon yërëm lu ut nokki gi yim xenu ba mu waral nokki googu loolu lay yërëm loolu lay sàkkul yërmaande وهو خاتم الرسل محمد بن الفاتح صلاة الفاتح لا النظم فيه كم نقول في شيء جوار تكمات بين القصيدة محمد ناس يونتو الفاتح يعني خمنا موي أجي هبي موي أبي أجي يونتو غناو بمتجي waaye dëgg-dëgg mooy ubbi nekk ak nekk gi gannaaw bu nekk gi lépp kaste al mutaxaqiqi kay aji dëggal al ali kay aji kawe ki nga moo ubbi lan li ma axlaqtahu la nga tëjoon al mutalamisi gi nga xam ne mooy sàkku yàlla tabaraka wa taala wa huwa xaatimun ruslan moo mottali xaatimun aji mottali ruslan ay yonantu ataw dikk nañ sabaqu jiitu lahu ñeyal ko ki nga xam ne mooy xaatimul anbiyaai wal mursalina wa naasiru daaka alxaqi moom mooy naasiru xaqi bil xaqi mooy dimbale dëgg ki yàlla waaye ci dëgg la koy dimbalee mab bi si yonent boobu nga xam ne nag man mooy suma jumuwaay ci moom laay jëlee ci moom lay laay tëbboo wahaadi mooy aji juble ilaa xayri siraati jëm ci gën ci yoon siraati kay yoon sax aljëli bay aji bit bay aji euh, fës almustaqimi bay aji jub mustaqimi bay aji jub ji yoon xayra mu della si duut bu ñuy jaxase buñu bu ma al ali ànd ak ñooñam xaq xaqal qadri mu ngi koy julli julli goo xam ne dafay dafay dafay dafay toll ni qadre nubuwaam qadre nabiyina firina ko sax wa miqdaarihi al aali tolloog miqdaarul wilayatihi waaye yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom nga xamee ne baat yi arab baat yi bokk lu ñuy firi waaye bu xaraf yi bu xaraf yi ëppee mu ëpp lu muy firi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nubuwaam moo gën a foor wilaayaam moo gën a yaatu wa miqdaaril azim tesu si wi nga xam ne bay aji màgg la ci sosuwaay allahuma salli ala sayidina muhammad